assalamualaikum bokk internet yi ñu ngi leen di nuyu te di leen jaajëfal ñu ñëwaatal leen ci ki nga xam ne moo di Mara Niass Mara Niass dafa waxoon ne Sénégal day door 3-1 heureusement Sénégal dañ ko door 3-0 ñu ñëwaatal leen ci kàddu nga xam ne moom la waxoon. yaa fi waxoon 3-1 waxal ci loolu. ana 3-1 yi. ana waxuñu la góor rek ngor ana 3-1 yi nga rek. dama ne la ana 3-1 yi. 3-1 yi nga daan may kóllëre. waaw yow arrêté sa yii bul jaxase kenn. danaan la jaxase sénégalais yi yow sénégalais yi bàyyi nañ la sëñ Mara léegi koo wax danaan la Mara dulkat la xoolal fii mi ngi nii bëri ba dee billahi <laughs> wóor na yàlla. d'accord jërëjëf jërëjëf yow bu fekkee yow yow yow la Sénégal yi di déglu. man la Sénégal yi di déglu quarante mille personnes eh kon mooy am quarante mille personnes ci TikTok bi. bu ma defee émission bu ma defee paale sama na ma am dix mille man quarante mille laa wax déggoo ma de quarante mille personnes. personnes ñoo may seetaan sëñ Mara non dagguñu parti yow yaa ne fi 3-1. waaw kon mbokk yi ñoo ko déggandoo dégg ngeen li nga xam ne ni moom la Mara Niass waxoon moom nag dafa mel ne moo yi mu waxoon mi ngi koy weddi ndànk-ndànk waaye lu ci mën ne am ñoo xam ne lépp lu xew suñu boroom moo ko dogal ndam daan ñu ko defal mais tey yàlla moo ñëw ak dogalam ñu xamee ko noonu di ñaanal gaynde yi jàmm te bii di ñëw ñu indil ñu ndam yu baree baree bare